jàngaale xam-xam sëñ baa daan wax ne farlu jot na ndax lu ko góor ji doo ko social suñu daan ne ku xeef moo raw la léegi li ngay bàyyi xel xool siñ bi si siñ baa doon daw waaye teewul gis nga siñ dawru mi ngi fii la fii la gi muy fii la siñ daaw ndax bàyyi wetees bi siñ daaw bàyyi wetees bi xel xam ne ni mi ngi fii la ne ci gannaaw moo tax siñ bi ne kuy fii la kuy fii la muy ni yow soo nga bee mu raw la de ne ku taxaw rek mu ne la wiif daa ma nii ko si ne wiif la te li muy baax baax Cheikh Fall la ñee a li mi gëne dana sëñ Mbacke Bousso xam ne juróom-ñeenti weer nekk na kook sëñ Tuubaa nga bopp balaay ku mel sa xale ji dox dem ca Mamor Jaara daanu ñun ñoo kattan Mamor Jaara na ko nit doo nit nit nga moom du nit gis nga li ko sëñ Mor Diarra wax moom du nit yow nit su la jootee di jaamu yàlla kaay ma laa xal nga lekk def sam bëgg li xool li programme yi sëñ Mbacke ndax xam ne ne sëñ Mbacke nit la si bi nag du léegi nag ñu ànd te saa bu jëfandikoo ñoom jëfe nga ba baraale ko sëñ bi jox ku béb sa tal no loolu nit ñi kuñ ko joxoon yaa nga baaxee man léeg-léeg man ndékki mayonnaise ak sucre ak café dem ci maygo bi fenn ñeent ne nag mburu añ dama teel a léegi nag xoolal Serigne Mbacké ku weeru sa tala ci ndox nga bu pare muy juróom-ñeent bi ko sëñ moo daara xoolee xam ne likku mu ne ko nag su tëjeewutee di jaamu yàlla rocceekul ñëw ma laax nga lekk dem waaye nu ko suñ doon def suñ bi buy tëju da koy tëjaale. na ko ba mën a gën a gore. Hmm. Moussa ko wax soxna sa baay dee na. suñ mbokk boo xoolee fa tamit xam ne doon noos de ñaare koy noos boo xoolee lex yi ci nga koy xamee fi ne lex lex koy noos yow mën a xàmmee. <laughs> kon. sëñ Mbacke dee na xaalim yi gën a def xaalim dañ moo tax laax bi ku soxna moom yi daa toggal soxna moom yi laax bu dama daa jox ñaari kudd bu ko weesu ma ko su ma ko weesu am problème hmm. su ma ne ko ah, may kan ah, lu tax nga mel nii ma ko sa baay ma ko def maa ngi ñëpp a tolloon sa baay ma melal nii Cheikh Mbacke xooloo wu melokaan ba noppi sëñ waay sëriñam Maamoor Jaari mi gis ngeen ko téeméer rakk guddi gu ne te bam noppee bañ ko laajee téeméer rakk yi loo ci jublu mu ko bokk ba bokk si Maamoor hmm. te téeméer rakk yooyu kat fanweeri at la ko tàmbali ba ci juróom-ñaar fukki jub lañ ne de te ba ma saa noppi day taajug paan paan gi ci la koy tëj bam di mat mo ñent ken ko mu jox law naaru ko na la tankal ten bo romb soti de bo romb soti ko jana ne rama rama sax ñu ñu ñu dagge ci ci doy seriñam de kon mag ñe de nañ to la len sëñ bi terbiya fi de tubaab biñ ko gor sëñ Cheikh Sadie Mbay mun ta gor docteur Sadio Mbaye mi ngi fi bi ñuy góor Touba dana mënumaa góor ñu ne ko tax ma ne su ma sëggee lampi nari damay saan man ah, nan la naan docteur Sadio gii la ne mun ta góor bu sëggee lampi nari koy saan xam ne gis benn sar ba ndar docteur Sadio docteur Sadio ñu ma dañoo daam na kon sëñ bi am tudd moo tax sëñ Malick Bachir si waxoon na da ngeen waroog nun nun dañ naan ñoom nga ñu ne duñ ko yéen a ngeen naan moom ngeen ko du ngeen ko su ko leen du ngeen ko ngeen mer hmm. waaye man ñooña fii la nañ de nga bu baraay ku béy sota la rek si daaloon dox te ñëpp ci riñ amul woon lu ñuy lekk amul woon lu ñuy naan dañoo jaamu yàlla ba tas te du ma neexutu seen waaye mag ñi fii nañ sen pas-pas yooyu nag suñ bi yaroon daa war ñu diko waxtane ndaw ñi xam nga damay non mag ñi ñoo suñu reverence sëñ musa ke ne won bari soxna taaxi kaw say mourid na ndërëm taxul serign bi jox la siroom da tax serign bi jox la siroom moy ndigal yëgal moo mourid mu di bokk ñoom ñu njëkkee de yéen a xoolal fi ñu dogoon o ma sa tuddu sëñ bu baax yuuxu nañ maam sëñ sim ca Touré Ndula daa génn boo loxo yi da doxoon ci tookër bi dégg ko ne sëñ Tuubaa mu ne minit ci kam ñun nag ay fan sa lañ de ñun ñun du ñuy war a daal ñun ay fan fan sa bari fi ne léeg-léeg da ngay waxtaani sëñ Tuubaa gaa yee ne maam Saara Fall nga dégg ko ne wala oh yaa ngi bëgg a waxtaan nag